àndoon ak yéen waaye nag yi ñu ngi jëm yi ñu ci bisu le 15 mai ànd ci moo géet events waaye nag ñi ngi xamal moo géet ak Pape Souleymane Bathily bi bu ñu fàtte ni suñu mbokk internet yi ñoom lañ ci àndal boobu ba léegi ca départ ba ba léegi ñuy dox ci promotion làmb ji di ci dox guddi ak bëccëg ñu leen di féliciter bu baax a baax di leen xamal ni presse bi mention ba ci biir koor gi ngeen bàyyi seen ndogu yi bàyyi seen ndogu kër yi di ànd ak ñun ci liggéey bi di ci sonn kon lu suur si ñu ngi tàllal di ko tàllal loxo Pape su lay bàcc ñu ñu ñëw liggéey te mënu liggéey ba pare incha allah rabbi d'accord nañ ne fii ba zéro heure bu combat bi jeexee loolu d'accord nañ ci mën na nekk waaye après 4 jours ngeen di teg combat combat non loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu wuñu ko kon donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mbokk yi ñu leen di nuyu di nuyu réew mi di nuyu bitim réew barki la ñu demoon ca Poussé Poussé dégg ngeen li mu wax alaaji mbay nee na ko alaaji bay bu ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la waaye nag tey dogo la ñu jàkkaarloo dogo ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi balaa ñu ñëw ci laaj waaw asalaamaaleykum ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi maa ngi gërëm samay ñaari waajur di ñaanal sama yaay fu mu tëdd yàlla yàlla xaare àjjana ak képp ku mu fa fekk ak di ñaanal sama xarit yi nga xamante ni nekkatuñu fi maa ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana di nuyu bees bi yëpp waaw di jégaluwaat parce que ni mu demee nii xam nii rek la mën a demee waaw affaire yi man doo sax comprendre waaw parce que alaaji nitu nit ñi la moo tax bu xewlee faa mu mel nii di jégaluwaat ñëpp di leen baalu àq di nuyu promoteur bi nga xamante ni moo tëgg làmb ji te xam ni def na ale waaye mu ngi def retour waaw ba ci kanam. waaye yaakaar naa ni léegi internet bi dafa wër àdduna barki démb dégg nga li Boucher wax. bay noo mais la mu ca teg doy na waar dégg nga ko baax a baax. waaw ah, la mu ca teg yow yaa demoon laaj ko. yaa may wax ne ma lii la la poussé wax ma tontu la lool. mais gisoo la poussé fecc ak fa mu ko dugal ak fa mu la dugal loolu gis nga ko. Baye Balla man ko ñu Fallaye Balla laa dëkk. waay wallaay. fii ma taxaw nii di open presse sama baasu ngénte fii lañ ko defee man fii lañ ma ngéntee fii ngeen taxaw nii. yaa may dégg. buuse maa ko gën a doon waga. est-ce que yaa may dégg. maak moom dañoo bëre 24 minutes ma duma ko daan ko fàtte xaju bi bu gaa yi taxawee nag bëgg jàpp ni mel ni moom moo ma daanoon te man maa ko daanoon loolu daf may xaw a jaaxal buuse bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko wala dégg li ma lay wax buuse nee na bi nga daan xale la woon te léegi xale màgg na te am na beneen ne léegi dafa yeewu bu sa nee na jàkkaarloog yow ci arène nationale bi moo la tee daan Alaaji Mbay ak koo mën a àndal nee na Fadel man dafa am ñu doy waar ñu nekk sama ginnaaw man Souleymane Balde moo ma tàggat jàngal ma bëre may ànd ak ay homme de valeur ay commerçant yu mag ay construire ay njóobu këy ay seex mbëtë di ma yor boxu ay Luis Ndiago may ànd ak ay abo di ànd ak ay Ismaïla Teranga Prestige di ànd ak ay Fall di ànd ak ay Ndekki Gueye Ndekki Diop di ànd ak ay Elou Assane Wade Ousseynou Wade di ànd ak champion bi nga xam ne moo ñu war a indi roi des arènes Pikine muy Ama Baldé bii ko paako maa ko gën a maa ko gën a xajam laa la wax alaaji poussé nee alaaji mbay xulli na la yoon ci ci ci. dina ko doo xeex doo bëri. bu eh, Bousse Alaaji Mbay nee na Alaaji Mbay Bousse nee na. combat bi def ci liggéey te gis nga ko dafa am doole. te physiquement dafa taxaw boo moytu da lay yóbbu à l' étude bëre loola xeex loola tànn la gars yi may la ñu tuuti. Eh, gara ci suufa suufa suuf gara gara gara. nan nooy waay ma àggaleeg ñii waay. wuy ah. ma. Baye Balla. bàyyi Fall la yow laay waxal. xam nga lan laay ni ban bàkk bees. samay bàjjan laa ciy sargal. dama ne maa mbay Masiri. Masiri maa mbay ñoo bokk benn maam. ñoo wax ne maa teg si maa ngi gërëm promoteur bi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu tëggaat lii muy moo gën di gërëm Pape Souley mi nga xamante ni moo koy démarrer sal affaire yi boobu ba léegi toxtiwul di sant moo gën bu baax kan moo lay indi waaw ku ma indi comme d'habitude ki may ñi may indi mooy ñi ma doon indi ñi may indi mooy samay xarit yi nga xam dama doon ci combat bi yaa doon doon ñoom Alaaji Mbay ci Alaaji Mbay buusee barki démb amoon parce que dama koy jël dama koy jël. Alaaji Mbaye dama war a woo di nga leen woo. da ngaa dégg bis boo xam ne àdduna koy xaar. di félicité moo gën event bi nga xam ne moo ko taxawal. ndax combat bi ku ne bëggoon na ko mu dëggal ci moom la ko yàlla dogal. di wax képp ki amateur lamb na nga bàyyi bis boobu nga xam ne bis la ci bis yi. waaye Alaaji Mbaye. poussé barki dem dañ koo dékk bi keroog mu ne waxul waxi daan waxi damm lay wax. daal di déglu leen ma galgalam boobu bi def bu ko defee dama koy damm te bi ñu ko waxee dégg ko loolu doon ci loolu waaw boobu yàgg naa wax noonu man Boucher sama premier combat moom moo ëppoon danger parce que sama premier combat moom kécco bi la ngeen di woo ko yeloo mu ñëw ma daw trois pas mu naan sees ma longal ma boo leen jàppee nen bi gis ko yaa ngi dégg waxu damm bu koy wax ay MMA koy damm da nga koy xool koy damm da ngay ñemee taxaw Baye Balla billaahi wallaahi wa taalaahi man lu ma wax dama koy def xaw ma ba xam Boucher ñëw ci làmb ji trahir def leneen mais man li ma wax dama koy def bu taxawee man moom dañuy xeex bu bëree dama koy duma dama koy daan. bi ko laajee wàllu xeex ne ko ndax ñeme nga xeex ak El Hadj Mbaye def ne El Hadj Mbaye ne Sa Thiès laa yoroon di man Boucher jàpp ma ko fii du ma ko daan loolu doo leen ci wax yéen journaliste. non nee na koy daan xale la woon léegi daa màgg moo bëgg combat bi. waaye xanaa daa màgget léegi ba mu leenee kay la màgget. ndax ma koy daan boobu leelul daa amoon garaw léegi amatul garaw. mais ah. eh, Alaaji ñamal ñu tuuti ñamal ñu tuuti ci li nga nar a indi. ci bés boobu noonu. nga ne baara nga ne garab ci suuf waay ngir yàlla. del déglu ay eh, waxaatal li nga waxoon léegi. garab bu mu la waxee nan nooy nan nooy. waaw nga ni. maa ngi jàpp la. ndax la teel maa la damay gërëm ñu fi teew ñëpp di gërëm presse bi yëpp ndax alaaji làmb moo may xëcc di ma dugal ci biiram dama leen ko waxoon nee na man làmb moo may xëcc di ma dugal ci biiram damay won ginnaaw làmb di dem sax làmb xëcc ma ni ma alaaji par force di nga bëre loolu ma rek la koy yàlla defal est-ce que may dégg may gërëm waa koñ bi yëpp di leen baalu àq parce que vraiment lu ma xewle fii laa koy defee. Ousseyn nee na la fii laa juddoo fii laa yaroo. nee na daf la ëpp jàppale. waaw Khadim Diagne mënul nekk sama ginnaaw gauche droite nekk sama ginnaaw Tafa Diop nekk sama ginnaaw Boussé ni ma ëpp jàppale. Ndiogu Gueye transporteur nekk sama ginnaaw. Pérès Koumé nekk sama ginnaaw Mariasin may sa biige may sa biige Mar nekk sama ginnaaw. kan la Waly Balla ko Seck. Ah. Awa Ama nekk sama ginnaaw. moo gën mi dëgg combat bi nek sama ginnaaw. Ah. moo tax gara Mambay Massiri Massiri Mambay ñoo bokk benn maam. demal. waaw ma bougé. nee loolu bu ko waxee. ñooñu am nañ droit jàppale ko géejuwaay lañ dëkk man buuse ngir yàlla na ma bàyyi ak sama Ama Baldé bii ndax lu ne dama koy dégg mu koy wax waaye diggante yëpp dugg na ci waaye booboo koy të yaa may dégg na ànd ak waa géejuwaay yëpp bàyyi ma ak sama waa Pikine yii boobu naa ne nga parce que man am sama nit moo ma gën a làmb am sama moo ma gënal ay millions li ma lay wax ni dama ko gëm barki Cheikh Fall simba léegi ne ci barki Serigne Bamba moo moo tax ma bëgg bëre da doon bëre ji ba ñëw man maa koy maase maa koy jiw qualité ak pétrole pour mu mën a nelaw lamb dafa nekk sama deret kër gii mooy kër Falaye Baldé kër gii mooy kër Mané Sène min ko fulaatu lu mel ni min laa Seraba xeex wala bëre waaw xeex wala bëre da ngay jëli wala da ngay xaar wala da ngay xeex wala da lu mu laaj dinaa ko def lu mu laaj dinaa ko def c'est dégg naa ni mu communiqué nee ma jàppale lu ne wax na ko bu ko may 30 secondes. fu mu nekk naa ko fekk naa ko du ma naan. waaw ñun suñu ngor la ñuy waaw ci làmb la yaakaar naa ne ki war a def xaalisam ci ma am si bële daf naa ma jënd ko ñaari saako semence xoolal noo ko defalee sama am dara lu ma am sama papa loolu la may wax lu ma am course bi loolu la may wax man lu ma am suñu kër laa koy def mais pas ci ay mystique dinaa ñaanlu nag parce que ku nekk ci làmb di nga ñaanlu mais su ma amee loo amaguma loo xamante ni dama koy jël ay millions yoo xamante ni dama koy def ci làmb làmb sama fit laa yóbbu ak sama fulla ak sama jom ak samay ñaanu waajur ak sama ñaanu maam sa digganteeg waa Pikine nga woote lii bari na mbir yu mag ci nekk Pikine sax te mun noo am lii sa digganteeg waa Pikine lan la waaw mooy li ma lay wax man Pikine man Pikine man maay rab bi maay rabu Pikine comprendre nga man Pikine du ma seen mbër seen xarit laa comprendre nga man dama am mbër man Ama Baldé mooy sama mbër. moo lay indi làmb waaw man dama am mbër. ndax man xam nga. waaw man man man bërekat laa eggaguma dimension mbër.